jamono jamono yàgg na metti ñu ni yàlla indi natt ñun nag Sénégal jamono ji dañu confronté ak natt boo xam ni nattu bu nat naq di mucc la wax naa ko muy branche bi nga xam ni benn branche bu am doole la ci Afrique yi xam nga Afrique yi wax naa ko ci waxtaan ba sax ma yàgg nañu dugg biir Sénégal mais bii branche bi ma gis ñu dugg si fi dañu doon branche boo xam ni bokk nañ ci branche bu ëpp dool ci Afrique yi te ñëpp xam nañ ne Afrique fu ñu dugg la ñuy bëgg ca foofu mooy mu yàqu la ñuy bëgg ca foofu mooy réeroo am fa la ñuy bëgg ca foofu mooy ñu fexe ba jàmm dootu fa am kon nag ñun tey war nañu cultiver waat war nañu cultiver waat valeur yi nga xam ni moom mooy valeur islamique waaye fexe aussi ba tekk ca yoon bi nga xam ni moom la ñu mag ñu jox ca xayb te mooy la ma doon wax ci sóoratu a taariq muy wasamaa i wa ba mu jeex ñu jàng ko juróom-ñaari yoon waaye fexe ba jàng boobu nag mu nekk loo xam ni sax dañ koy saxal maanaam du doon rek lu ñu def tay ci ñaan arrêté ko mais mu nekk loo xam dañ koy saxal waaye ñuy jàng it ayatul kursi di jàng la xat jaakum di jàng lépp loo xam ne alxuraan la te mën ñu sàmm mhm. ndax yàlla daal indi na suñu biir noon yoo xam ne duñu nit mhm. yàlla dénk na leen i pouvoir may na leen doole mhm. te yàq rek a leen tax a jóg kon jullit bu nekk na dellu ci source bi ci enseignement yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ci enseignement alquran foog naa naan daal lii suñ ko defee ànd di dimbali suñu bopp ci rafetal yàlla mën nañu dimbali ba lépp loo xam ne nattu woon ci réew mi yàlla teggil ñu